nee na la puissance merci beaucoup nee naa bu fàttee abonné. lii moom doomu Gaston Mbengue bi nu mu tuddati mbakat Mbengue indil ay bal di tulli ci làmb ji daa tulli la daa xew de kooku de nee na la dëkk waaye yàlla na soq am ndam <laughs> Babacar Ndiaye nee na kenn du yow tamit en direct bi. Ndeysaan ñoom ñaarang ci digg géew bi. soq bu ndaw ak talfa ñoom ñaar ñoom seen entraîneur yi génn nañ géew Père Jules day toog wala déet arbitre woo na leen ci diggi gi bi nee na leen kaay mu ngi leen di wax li làmb bañ ak li làmb nangu matt bokkul ci làmb ak gajji ak xosi ak xuri door ci loos amul ndeysaan Abdou Faye nii naa la siyaar naa ak soq bu ndaw wuré ba jëm na këng waxi mag dem na ndañ taali foog jël la am te nee naa la lu doon waay jaay mu lam ndaysaan talfa góor a soog ko indi waaye soog bu ndaw soog ko indi ak ki nga xam ne mooy pur père jour balde soog bu ndaw nekk ci raq ci soog talfa nekk jarbaat ci góor a soog ndaysaan piki na parcelle jogati nañu ndaysaan arbitre baa ngay wax ak ñoom mu ngi leen di wax mu ngi xaar di xool ay superviseur am daa mel ne ay superviseur am pare guñu ñoo ngay wax fële ci diggante Talfa ak Sokh bu ndaw aca mbokk yi tax na di nga nuyu combat bi xaar ay weer fu mu toll nii ay miin moo si des waaye di leen bu baax a baax su mel ni Abdou Ka Moussa Demba Libaas Mara Baxum Mara Baxum Youssou An Samba Solo Seydi Madi Cissé ñu ngi lay nuyu Mouhamed Ka Abdou Ka ñooñu si mbokk internet la ci biir combat diggante Sokh ak Talfa Mouhamed Ka maa lay ziar Sokh ak Tapha kan mooy daan wax lan ma ko dañ ab bi waay sifflé ab bi sifflé na si diggante Tapha ak Sokh Sokh moo ñu woon kala mu ñu Tapha Sokh bu ndaw Sokh kon koy dóor Sokh kon koy dóor eh, na ko ndom Tapha war na ko ndom Sokh Tapha Tapha Sokh la nga baaxul Sokh Tapha talfa Sokh wëlbatiku na laa ilaa waay kii mooy ndaanaan kii mooy ndaanaan oh Sokh talfa waa xale bee ndaanaan Sokh talfa ay waay bu hee laa ñaari xale yi dama dina ci suuf eh talfa daan na bu ndaw talfa daan na bu ndaw laa ilaa talfa daan bu ndaw jël bu set wecc Sokh ma nga taxaw mel ni Talfa Sokh bu ndaw eh lamb la waxoon naa ko nee leen ku ci xeex baa nga xuloo yaa koy yëg eh lamb Talfa daan na Sokh bu ndaw nee leen na ko lamb bàyyi xel <laughs> na ko lamb bàyyi xel ndeysaan stade toj xale ya màbb nañ topp dem la ilaha illallah le combat du siècle Modou Baye Fall moo woote woon ki nar ki nga xam ne mooy Production ndeysaan Talfa daan na soq bu ndaw jël bu kenn du na table ndeysaan waa Pikine nee nañ toog nañ Talfa Talfa duggoon na pi Talfa tey dugg na Pikine daan na nee na da koo mën waaye kii di soq mën na bëre waaye laa ilaaha illallaah soq lam fa bëre rey na soq la mu mel noonu génnal eh Père Jules Balde ndeysaan xale ya ndeysaan nee naa leen làmb powum góor la waaye ku daanu dangay wéet làmb powum góor la waaye ndeysaan ku daanu dangay wéet. xool leen hee lii nañ ci am yoon de Talfa Sokh bu ndaw Talfa Sokh bu ndaw oh mbokk internet yi ndeysaan kooku nee na Talfa vrai champion la kenn waxatu ko saan Sokh bu ndaw ngay bañ Sokh ngay bañ ndeysaan Sokh ngay bañ. nee naa leen làmb fowum góor la ku jug daan wéet Talfa nañ ko bu bàyyi xel daa bokk si daa bokk si làmb bañ na tëdd na soq bañ na tëdd na ndeysaan soq bëre ba naaw soq la mu bëre moo wëlbatiku ba waaye nee naa leen